Une minute de 5 Ton cousin Batidou, Keifa, <laughs> comme chaque soir, merci. Oui, <laughs> Six secondes, le Ton cousin Batidou, comme d'habitude, Keifa, pour les costumes africains. <laughs> secondes. C'est 3C depuis off. Avec maman Ariette. 3C depuis off, maman Ariette hein? maintenant. Légui dama am samay accessoire. Maman la non non du maman arrière suñu rakk de. ban maman arrière maman arrière suñu yaay. ah bu mag bi. Ah, moo génn fii très bien moo génn fii gis nga ko trop classe. wala daal li may wax boutique baa ngi yow. c'est joli corokaay. tey moom ñoo ote su ma ak yow. ñoo ote su kaay man nag sama sœur nday soxna euh, soxna Ndour. waaw depuis Dubaï. taalibe Serigne Saliou moo ma yónnee ci bu ne muut. rafet na Ami Diana Diana design moo ko ku ku toog. daal di coro. sama dàll yi xam nga li nak cadeau wu sama sama maggi la na fi jey nga xamne ne dara bàyyi ba jey na fi mom lépp mokoy gérer fam mu toll lépp mokoy gérer make up bàyyi yasin jim bi daal ñoo sot ñom yaxu ñom maaj ñom na fi ñi ngi fi toj vraiment ñaw kol bi kol bi kanati la yi bi sama mag la mam coxo depuis xombal doomu bàyyi dafa neex léegi kaay xool hôtesse bi jàpp wa yow dañu hôtesse bu laal lay changer place ñoo bokk moof macro ñu dugal micro. yow bàyyi Modou xanaa. masa daag masa yenn daag moo def moof doore. wala loxo yi xewal temps yi temps yi lay génnee ci grand boubou yi. bul dem dërëm toogal dama lay filmer bijou yi. Aji Thiam chéri monsieur Niang Graciela Boulangerie la solution ñoo jaar fii ñoom dañuy assorti affaire yi léegi. ñoo boobu moom. make up. pin up glam by déjà. salon nee la rek. team bee fi jaarati kontaan naa ci yéen moom Malado uti leen ko je montre à avoir voilà tey ñii ñoo ma sot ma ma yeggal gérer sañ sa yeneen gars <laughs> bisu du wàcc na. giraawul ma def fii dërëm tam yow it ñu nit dañoo ote soog yow tamit. macha allah tey kay dama ñëw xam nga waaw jël bleu ah, bleu. la bleu la dafa saf rek. dafa saf comme sunu bos rek. bleu saf mais yow sama kenn du yow. macha allah génn fi. xanaa jong maa jong bu séeréer. si joli sama ñeene xam ne tëgg bu ndaw ndaar. ndeysaan bala may sa bala may sa ma lañ. waaw solal ma ko nag ma ñëw bala may sa yii ñuy def ak yeneen. leen di jub si day waajaat ndax maa <laughs> lii xoolal Sophie. moom tam daa ote su ci mauve bi. vraiment teel a jóg tey xale dañ maa préparé góorlu ma saf ma jaar fii tey. Ndindy ah, def ak yeneen. grand bi baax na Sophie gis nga ma ni nga sànni sa musoor. waaw très bien. Yacine <laughs> kontaan naa Thiam. Yacine <laughs> la musoorati. Yacine la ma musooral musoor Yacine maquillage rafet na c'est joli. magnifique ma daagu jëm ci xëdd ga. waaw kay ñoo ngi ñëw ak ne. ah cim. tey rouge nga def ak lan somo. mi ngi nii daal somo somo la xoma champagne clair la. patch de couleur bi neex na ma rafet na waaye jàppal ni juma moom. wuu ñuy fashion couture. ñoo fashion couture juma nekk ca wakaam. sama baay faal boobu.

la def vert vert vert ak daal yu mel na noir cëm daal. mais bijou loo loo wax. rafet na parce que xam nga lu tax. ki ma sañseel bijou. xaaral uh-huh. euh, xaaral xaaral ma jox ko parce que dama bëgg sax yow nga dem fa. amul problème kii ma sañseel nii. Uh-huh. baayam moo doon ñawal sëñ Mansour. Ah. baayam mooy ñawal Youssou Ndour. Uh-huh. dama lay dama lay jox tur bi su la ko joxee. yow yow da ngay da ngay da ngay xam. ni euh, kii nga xamante ni moo ma solal nii. Mhm. Euh, ndaanaan la. xam nga lu tax ndaanaan la. voilà voilà moom mi ngi tudd. Euh, jamono couture. El Hadji El Hadji Ndiassé Yadd. ñëpp xam nañ ko El Hadji Ndiassé Yadd ñëpp xam nañ ko. moom moo doon mooy ñawal moo doon ñawal Serigne Mansour borom daara ji. te mooy ñawal Youssou Ndour mooy ñawal Youssou Ndour ba jamono ji ñuy wax ak yow. naanaan la waaw yow ko noo ma gisee. sañ-sañ. moo. guy gi ku la def nii. <laughs> kii de Pape Maama fi jaar. Pape Maama Pape yii Pape Maama fi jaar fii. Pape Maama toj na fi. ah. kon naa yow soxoro. sañ seen na la. yow Lamine naan ma maa la dàqal. <laughs> bu ko doon da lay provoqué. ko foofu rek.